Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également de baisser des commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations yi mbokk sénégalais yi fépp fu leen 14 régions du Sénégal à nouveau këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci dal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wër ak jàmm ñi nekk ci kaso yi nga xam ne erreur judiciaire ak giñ leen lu ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom delloowaat leen seen njaboot ñi nga xam ne aussi seen jëfa leen fa yóbbu suñu borom xiraat leen ci yoonu dëgg ñi dëddu àdduna suñu borom xara leen àjjana fi daw si gars yi te yéexee ñu ñu nekk ci mbënn bi aussi duñ leen fàtte ben yoon l'actualité en on continue gars waxtane exclusivité ki nga xam nak moy donc ki di tabal day jawo mi wara dem ci Valence lepp lañ leen indi ay Nicolas Jackson actuellement la nouvelle pépite de Villarreal ki di mbay amadou Niang nak ñukoy du côté de Sion et de Nantes mais aussi Messi qui éteint les lumières mais d'abord soutien total à mon frère mon promotionnaire un ami d'enfance également Outmane Diagne l'un des cadres de Mafia kati Kachi hein. ah ñu téko euh, ci lo xam nak amone amaa ne jaaduwut ko fenn ñukoy soutenir parce que au niveau de ci man lima xam ci mom bokk deug lima xam ci mom c'est quelqu'un qui a été toujours studieux très respectueux très réservé et aussi très sociable par rapport aussi li nga xam entourage également image bien, ah, image bien. donc tu as laay may FC Barcelone demain au Real dina leen may Benen, wala Benen club parce que man faruma fee naa ah, comme on dit man mon sport lay supporter sénégalais yi lay donc image bi ngeen gis ko Zlatan gis également Lewandowski et aussi euh, Ronaldinho el phénomène. gars yi lii mooy 20 entraîneurs yi nga xam ne ren di Liga donc ñu ngi nii Valverde ah, entre autres Ernesto Valverde Diego Simeone ah, donc Arazar Nekoti aussi Javi, Nekoti entre autres Lionel Messi le retour de la pulga de la puce est-ce que c'est le bon moment pour Lionel Messi de se montrer en tout cas Gaïdaou, donc stand d'adaptation là, Mon critiquer Lionel Messi qui démarre fort ah, Lionel Messi qui démarre très très fort parce que Gaï, ça Lionel Messi tay fay na lampe clairement il a éteint les lampes comme neex parce que ce but aujourd'hui le but de Lionel Messi c'est un but venu d'ailleurs entre autres hein, ça me rappelle un peu un peu le but de Kiranomoy Ahmedou Bamba Dengdian et également Cristiano Ronaldo CR7 avec la Juventus de euh, plutôt le Real de Madrid plutôt donc actuellement aussi Lionel Messi qui démarre fort hein, 3 buts une hein, passe décisive par rapport au match mouillé joué une préparation dit également hein, trophée des champions Lionel Messi la Pulga donc aujourd'hui donc qui a marqué donc un doublé donc délivré aussi une passe décisive par rapport au match mouillé joué tambour battant aussi pour kenen qui nga Neymar Neymar oui oui oui, Neymar sincèrement hein, la chat la chat ca Dougou, il démarre très fort aussi hein il démarre très fort euh, Neymar tey trois passes décisives la def Dougou également hein donc euh, moom it ñu nekk joueur boo xam ñu hein, c'est un talent gâché parce que Neymar pour man heure bi waroon na fekk mu jël au moins ben ballon d'or ben il xaaraat beneen mais hygiène de vie dafa baax ci joueur ah hygiène de vie dafa baax ci joueur ah encadrement baax ci joueur mais loolu ko manqué on espère que maintenant génn ci caaxaan yooyu Hudson-Odoi également hein moom actuellement dafa dañ koy waaj a donc de toute façon il va avoir du temps de jeu donc Leicester moo ci nekk ak aussi Southampton pour ñu daal leen koy àll le joueur de Chelsea des Blues de Chelsea nga xam ne actuellement daal bokk ci turnover bu kii di Thomas Tuchel Eric Ten Hag nak actuellement mom dafa nek di wër góol ah gardien lay wër gardien bu lay wër bu expérimenté parce que mom actuellement dal hein ah, néna na gars seen choix ah mun nañ def choix mais mu dafa am gardien xamé mom ñom la tànn même bu fekkee ñoo gëna cher ñooñu daal la bëgg ñëw euh, ñu ñëw fa nga xam moy ci donc Manchester préparé relève bi ki nak di Nicolas Jackson gars tay encore dafa duggal délivrer passe décisif hein passe décisive le délivrer tay le joueur passé par Casasport hein ah, nekkoon également ci Villarreal nek ci équipe B bi yéegloo leen ci li nga xam nak moy euh, division 2 fa nga xam donc moy donc ci euh, fofu ci euh, donc Espagne yéeg namit gaaw daw mu doon cof ay match ren nak mi ngi dougal ah ñoom nag ñoo door tey ñi nga xam moy donc Inter de Milan 4 buts à 2 il a marqué il a délivré une passe décisive mo motax actuellement nak ki di Unai Emery bëgg jël place dal di ablé ki nga xam moy donc ki di Boulaye ngir Nicolas Jackson gëna mëna am temps de jeu parce que match yi pass yëpp mi ngi titulaire ah mi ngi wane bofam gis ngeen ko aussi hein c'est un joueur bo xam très prometteur et que s'il continue sur cette dynamique nek Villarreal pourquoi pas pourquoi pas Aliou Cissé woo ko parce qu'on a besoin de ce genre de joueur ñun mom ku ay rek nek ci en forme problème rek dañ lay yóbbu Mbaye Amady Ndiakhoum ñaa ñu ma koy wooyee man sincèrement neexuma ni ma koy wooyee mais Mbaye ñaa mu dafa jot mu rek Mbaye ñaa nag actuellement waxna len leen tolof tolof yi ci euh, transferam récemment ñu ngi doon wax aussi au fi mu ne Nantes ma bu France moko bëgg ak aussi Sion équipe bi di Sion ñoom daal ñoo bëgg nek fi mu recruter ki nga moy Mbay Amadi Ñamé Sion mo gëna a jégal tax Sion gëna a parce que Sion dafa ne mom day fayalé indemnité de transfert alors que yeneen club yi dañu ñoo fay indemnité de transfert alors que jamono ji bodo dafa soxla xaalis moo tax ñu naan Sion dal bu fekkee may ñaar Niang d'accord nag ñoom moytul fa la jëm ki nak di Gennaro Gattuso euh, la légende hein, vivante de la Squadra Azzurra mais également du Milan AC mom actuellement mo ciblé double benn joueur muy kan muy Keita balde Diawo Keita balde Diawo actuellement daal daw waron na dem Valence mais ça n'a pas pu se faire donc dafa capoté woon fi nak relancer nag relancé war nañ ko Gattuso wax na wax naa moom ne na ko dafa bëgg mom mu ñëw du côté de Valence donc Keita balde Diawo qui retourne du côté de l'Espagne peut-être gannaaw bon mu jaaree Masia donc ak FC Barcelone on lui souhaite ça donc il a besoin de temps de jeu dafa wara retrouver formam parce que Keita balde Diawo temps yi xàmmeetuñ ko et pourtant c'est un joueur exceptionnel man Keita Balde Diawo bu 2017 la bëgg gissat en tout cas les gars c'était les informations ngeen gisee également Keita Baldé Diao du côté de Valence Nicolas Jackson Mbaye Amady Lionel Messi jaa ngeen jëf